salaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, euh, ziar di baalu ak Sénégal yi nga xamante ne bi ñoo ngi seetaan di wax ni li taxoon ñu woote tey ndaje mi mooy seetlu ngeen ni assemblée nationale ñeenti weer mi ngi woon nii mu tëjoon ay buntam euh, loolu wéeruwul woon ci yoon ndax du yoon la yoon loolu la santaane ci doxalinu assemblée nationale waaye yéen ay seede ngeen ni am na liggéey bu mucc ay boo xamante ni. député yi bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi ko doon dox ci biir assemblée nationale di mandargaal li nga xam ne bii moom la leen yoon jox ci ay sañ-sañ ngir muy liggéey bi ñuy wax liggéeyu député bokk na ci sañ-sañ yooyu li ñu mën a wax initiative loi initiative loi mooy am sañ-sañu tëgg fent tëralin boo xam tëralin yoon la boo xam bu génnee Sénégal Sénégal yëpp dañ ciy tënku walla mu jubbanti wala mu dindi loi boo xam ne dem nañ ba gis ni loi bi amul njariñ wala day gaañ ñu mën koo dindi bokk na ci liggéey bi li ñuy wax contrôle de l'action du gouvernement maanaam mu saytu doxalin bi nga xamante ni bi moom la ñi muy votel budget ñi ñuy dénk suñu alal ci dans le cadre du pouvoir exécutif moo waa nguur gi seen liggéey ñu mën koo saytu xool ndax lañ leen santoon keroog ba ñu ñëwee assemblée nationale ak koom bi nga xam ni moom la sénégalais yi dindee woon ci seen poos jox leen ko ñoom ndax dugal nañ ko fañ ko waroon a dugal ndax kàddu yi ñu tënkoon nii fii lañ ko war a jaare ndax jaaral nañ ko foofu loolu mën nañu tënk ni mooy liggéeyu assemblée nationale ngeen seetlu ni ñeenti weer yi loolu jafe woon na lool ba ñun bindoon nañu sax ñi nga xam ne bii ñoom la yoon dénk wàllu yoon di leen xamal ne leen assemblée nationale kat bopp ba dafa yambax dafa dafa dafa yëmbax nañ ko dindi teg fa beneen bopp boo xamante ni bii war naa mën a tax ñu li ñu bëgg ci assemblée nationale mu doxee ko. tey nag bu fekkee dem nañu ba ñu woote waa assemblée nationale ñun dañuy wax ni euh, ñi ngi dañuy dañuy gërëmaat bu baax député coalition Yewwi Askan Wi ndax taxawaay bi ñu ci am waaye ni ki ñun ni ki doyen Lamine Diallo ñoom taxawaay boobu lañ ci amoon tey ba tax ñu mën a convoqué bis bi mu nekkoon réunion bi bi ñu ñëwee tamit bokk na ci laaj bi ñu njëkk a laaj bi ñu jëlee kàddu ci ñun ne laaj président assemblée nationale lan moo tax article 17 du règlement intérieur de l' assemblée nationale ci tëggin bu mujj wa maanaam alinéa in fine ba ca mujj dafa wax ni l' assemblée nationale se réunit au moins le bureau de l'Assemblée nationale se réunit au moins une fois le mois ñu laaj ko ne ko lan moo tax yow le bureau se réunit au moins une fois par mois ñu laaj ko lan moo tax tërëlin bii nga màbb ko tontu bi mu joxe dama leen koy wax dama leen koy liiral ni mu ko waxee noonu lañu ko bindee mu ne li tax defu ko c'est une question d'indisponibilité de sa part point lii la ñu tontu.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 xaw ma lu muy nuru xaw ma nu ngeen ko mën a tekkee waaye nag terewul abordé nañu question yi nga xamante ni bi moom la ñu inscriroon ci ordre du jour bi question yi gannaaw les informations bokkoon na ci euh, d'abord la question des informations il faut ñu wax ko xam nga dafa am indemnité de transport bu ñu jox député yi bu doon tolloon ci cent 000 francs non lañ koy wax parce que boobu ba léegi gis ngeen député yi taxe la ñuy jël banque bu ñu dem banque yi dàq leen amul benn député boo xam ne bi am na les moyens de circulation et oh, il faut qu'on le dise il faut qu'on le dise il faut pas avoir peur d'aborder la question parce que dafa bokk ci conditions yi député bi liggéey ñu jox ko loo xam day tax mu yombal liggéeyam gannaaw salaire ba gannaaw indemnité ba dafa am la moyen de transport législature yi jaar Sénégal yi yëpp dañ ko yëkkati jox leen ko ñu bëgg ñoo gëmloo ni waruñoo wax ci question bi dañ ciy wax indemnité boobu 700000 la woon décidé nañ ñoom seen coobare bopp. je précise bien amul benn député bu Yewwi Askan bu toog ak kenn kilifa naan ko yokk leen lii wala def leen ko lii amul. il l'ont décidé ils nous en ont informé matin ñun amuñ ci benn commentaire bu ñu ciy def nañ def lu neex mais sur les questions yi nga xamante ni bii moom la nga xamante ni bii moom lañ fa andi bokkoon na ci euh, la question. de proposition de loi comme ni ko sunu collègue Aba waxee bi ci njëkk proposition de loi boo xamante ni bii soxna Mimi Touré ancienne député wala député la sax ba léegi ndax kenn notifié wu ko radiation am révocation am moom moo déposé woon benn proposition de loi pour wax ni réew war nañ cee xaj ci niñ koy téyee deret ak deret maanaam kuy sëdd njabootam ñoom ñu jàpp ni sur cette question la ki ko dëpp ce n'est pas conforme à la constitution ndax constitution dafa wax ni réew mi warul am xàjjeeg seen warul am ci xàjjeeg seen ci biir diine ci biir askan ci biir ñi maanaam nangam indi yooyu yëpp ba noppi wëlbatiku ne comme moom nekkatul député mënatul yenu projet proposition de loi boobu pour di ko indi ci assemblée national ci ci anam yooyu la ñu dàqe boobu am na proposition la wax Cheikh Aliou Bey moo ko indi woon anam ci wàllu révision du code électoral lañ ci doon demandé mooy conditions yi nga xam ne ci la ñuy defee inscription yi parce que li ñu seetlu mooy bi fi Macky Sall nekkee ba léegi boo dajalee période yi nga xam ne ubbi na révision exceptionnelle boo ko wàññee ci 12 ans yi matul 6 mois donc mu indi loo xam ne day tax loolu soppeeku pour ñu permettre sénégalais yi ñu mën a inscrire loolu moo taxoon groupe parlementaire bi demoon saisir wàllu yoon référé ba ba mu génnee décret bi wax ni le 6 avril la mbir mi tàmbali jeex le 6 mais ñu ne ko at mu ci nekk dafa am révision ordinaire boo xam ne 6 mois lay durée dàq nga ko indi révision exceptionnelle de 24 jours li ñu lay ñaan fii la ñu ko waxee woon mooy na nga koy yokk comme sa coobare bopp la ñu ngi la koy bàyyee mais yokk ko mu romb 24 jour dem ba 60 jour pour que ndaw yi ci réew mi yëpp te di matal loolu ci diggante août 2022 ba bisu élection bi kenn xamul nu ñu toll ñu may leen ñu mën a inscrire jàmm ak salaam parce que diggante am carte d'identité ak diggante inscrire ji ci carte ci liste ci ci ci liste électorale yi la fa nekk ci xat-xat bari noonu ba nga xam te ne bii 24 jours yi xajatu ci donc waaye dàq nañ ko ci lan nee nañu code électoral réforme bu ci mës a am ay déggoo la woon boo kon du ñu mën a du ñu mën a nangu assemblée nationale di ci jël loo xam ne lii alaa kulli waxtaan yooyu lañ koy mën a bàyyi. la muy tekki bu ngeen déggee olof wala ngeen bu ñu mënee firi li muy tekki mooy ca dialogue ba lañ koy waxtaane ji ku demul dialogue sa affaire la beneen bi mooy li nga xamante ni bii mooy proposition de loi bi nga xamante ni bii dañ ko def ngir yokk daan yi nga xam ne bii mooy indi ci ngóor jigéen ak lépp lu seexook moom ak képp ko koy jàppale yéen ñëpp xam ngeen histoire bi fi xew ñi ko doon dox muy waa sàmm jikko yi dem nañ kilifa yi kilifa yi joxe bindal ñoom seen bopp xaatim wax ne nañ jàpp ci lii ma xamal leen ni leen bépp député bu nekk Yewwi Askan Wi signé na ko pour que ñu def la criminalisation de la loi de l'homosexualité lañ ñu tontu nag fii mooy am na fi loi boo xam ne bii mille neuf cent la woon soixante moom indi woon na daan yi ñu ca doon teg muy acte contre nature waaye ñu wax leen ni leen acte contre nature am na une jurisprudence boo xam ne bii la muy tekki ak li ñu ko bëgg a tekkiloo fii du benn te ndax acte contre nature boo ko bëggee jël bëgg ko dugal ci biir ngóor jigéen léegi ñoom génn nañ ci ngóor jigéen. maanaam ci àdduna bi wërngal këpp ba ñuy tënk ñoom di tekki lay wax ca baatu acte contre nature dañ cee génne bis ni ki tey lépp loo xam dafa jëm ci wàllu nguur jéer ak lu seexoog moom kon bu ñu bëggee wax ni loi ba fa nekkoon ma ngi koy dàq foofu di ko fa duma dañ ne déedéet li ñuy laaj mooy daan yi ñu ci doon teg nañ ko gën a dëgëral ndaxte li ñuy wut ci loi ou bien da nga koy yéegal ngir mu gën a raglu ba nit ñi bàyyi yenn yi ou bien nga woyofal ko boo bëggee mandargaal boo bëggee jëmmal benn taxawaay lañ ci xamal mooy gannaaw loola soxlawuñu fii loi boo xam ne bii dafay indi ay daan yu bees di ko ci teg sur la base d'émotion qui nu coûte un remplissage de nos maanaam ci naqar naqaru xol goo xamante ne bii li muy jur mooy prison yi fees ak ay nit lii may wax nii nit ca ñoom moo ko wax fii bu jotee mën nañoo leeral kan moo yëkkati kàddu yi xam nga ne lam ci teg mooy c'est une réalité insignifiante dans l'espace public c'est une réalité insignifiante dans l'espace public donc lii ci anam bi la ñu dàqe ne loi bi proposition bi bu jàll mais dañoo bëgg indi benn leeral boo xam ne bi dañoo bëgg ñu weccee ci parce que lépp lu ñuy doxal ci réew mi dafay wéeru ci yoon wala mu ñàkku ci wéeru bu ñu demee ci assemblée nationale ñaari charte moo ñu tënk benn bi constitution la beneen bi mooy le règlement intérieur de l' assemblée nationale. mais règlement intérieur de l' assemblée nationale ba muy wax li assemblée nationale di liggéey yëpp dafa indi fi nga xam ne ni foofu la ñuy waxee li ñuy wax les propositions de loi parce que dafa loo xam dañ ko war a leeral ñi nga xam ne bi ñoo séq wàllu. sañc ay yoon sanc loi ay tërëlin bu weesoo gouvernement ak président te ñoom li ñu indi tudd projet lépp loo xam ne député da koo indi te mu jëm ci fent loi wala ay askan jox ko député député yanu ko pour indi ko ci biir assemblée bi kooku ma ngay tuddu proposition de loi mais li ñu wax mooy li may liir nii mooy article 60 alinéa 1 du règlement intérieur de l' assemblée nationale ñoom li ñu dàq yëpp kon dañ ko dàq pas parce que dañoo wax ni c'est la question de la recevabilité moom la ñuy agsi parce que recevabilité yoon da koo wax indi ko fii yamale ko ci ay conditions yoo xam ni moom la ñu leen bëgg a leeralal article 60 alinéa 6 dafa wax ni les propositions formulées par les députés ne sont lorsque leur adoption ne sont pas recevables, lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à mooy que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. li muy tekki mooy bépp député boo xam ne bii danga indi sa xalaat ci proposition de loi tëralin yu yees ci réew mii wala soppalin ci tëralin yi nga xam ne moo nekk ci réew mi nangu ko ñu waxtaane ko ci bureau assemblée nationale ma ngay dagan bu fekkee ni proposition de loi booba indiwul di wàññi koomu état walla muy indi ay ay ay ay bëgg-bëgg yu yees ci wàllum koom ci état walla bu fekkee ni da koy indi yow député bi ko proposé na nga wax état fan lay jële ci xaalis boobu proposition de loi sur l'homosexualité la question de la recevabilité wax leen ma fan lay indi lii nga xamante ni bii mooy la question d'une diminution de ressources wala création de charge nouvelle amut mais liñ ci seetlu ci yëpp mooy nii lañ ko dàqe foras dalu xëddeen te li ci lii mooy li ci les commissions d'enquête parlementaire ndax li tax commission d'enquête parlementaire di am kooku bu ñu demee ci article 48 lañ ko fay fekk commission d'enquête parlementaire ñun bu ñu la nee yow yaay député indil lañ la budget ministre bi ñëw na ne la sama budget euh, euh, cent cinquante milliards la wala soixante milliards la wala six milliards la ñu werante fa wax fa lañ fay wax ñu ne nañu voté député yi ci ëpp ca ñoom voté ba ñu ne ministre bi jox nañ na six milliards yi nga doon laaj mais du ñu jël nit jox ko xaalis ne ko demal mu dem amatuñu topp lu ñu koy toppee dañoo wax ne le contrôle a posteriori yi ba nga ko joxee ba mu dem ba noppi danga koy dabaloo dab da nga koy dabiwaat waat ko ne ko kaay étape bu jot daw ba nga xam ne sunu xaalis bi ñu nga xam te ni moom la Sénégal yëpp cotisé woon jox la ko yow nag ñu wax fu mu dugg. commission d' enquête parlementaire les commissions d' enquête parlementaire yi nga xam te ni moo fi ñëw yëpp mën nañ koo lim ma bëgg leen laaj ay laaj situation administrative et financière de la poste poste lu toll ci cent trente milliards réer na ci biir post ci depuis deux mille quinze ba fi mu toll nii moo indi jafe-jafe yi. waaw ñu ne nañ fa créer commission d'enquête parlementaire parce que loo xam ne lii état moo ko moom la comme état fa dugg ba partenaires yi ñëwoon wax ni nañu considérer nañu xool ni post mi kat dafa sa ngéem nañu xool lu ñu koy mën a dimbalee ba ñu war faa dugalaat xaalis loolu yoon la député yi wax Sénégalais yi ne dem nañu post lañ doon wax ñun saytul nañ ko suñu bopp gis nañ ko ànd nañ ak ñoom ci solution yi ñuy proposé commission d'enquête loolu intérêt Sénégal yëpp bi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 ñu dem dugal fa 45 milliards mais loolu bu dee suñu 45 milliards la te yow ak man ak keneen ak keneen ak ku ñuy seetaan ñoom ñoo cotisé woon ba loolu dem bëgg nañoo xam suñu xaalis lan moo tax nit jël ko dugal ko ci anam boo xam ne war ko foonu dugal kooku baax na wala baaxul ñu dolli ci beneen xam nga nit buy dugal fii dafa am lu ñuy wax les déclarations d'importation de produits alimentaire mooy dépasse yi ci wàllu importation de sucre am na ci loo xamante ni bii kon am na saytu bu ñu ci waroon def ngir indi ci ay leeral ci par rapport ak ñoo xam ne dañ leen koo jox ci condition yoo xamante ni bi jàpp nañ ni war nañ cee mën a indi saytu buy tax ñu teg ko ci woon war naa leer war warta leer ma indi la beneen mbànd yi nekk fii ci Bargny dañu fay toggee këriñ gi ngir mu indi courant ñun ñëpp seetlu nañ ni fan yii passé njëgum courant yokk na njëgum carburant yokk na te ñun ñu ne am nañ mbànd moo xam ne mën naa togg loo xam ne dina dugg ci courant bi xëy na mën ko mën na koo yombal waaw bu fekkee ni Senelec dafa signé benn contrat ak lu ñuy wax la compagnie d'électricité du du noonu la am waaw bu loolu bu amee te ñun ñu wëlbati ko ne dañoo am problème mu courant wala dafa cher wala nangam mais yoon la dem fañ koy togge xool ndax togg ba bu fekkee ni fàttewuñu tamit ne askan wa dëkk foofu ñoom xeex nañ loolu ba sonn ne lam leen a jural ci ay jàngoro ak ay tolof-tolof doon na loo xam ne lii war nañ faa mën a dem pour xam ne mu demee commission d'enquête parlementaire jaadu na wala jaaduwul ma dolli ci beneen ñu wax ni building administratif bii xam naa ni moom mook mook mook second mandat bi ñooy jeexandoo ndax koo xam ne kii da fal ba nga faloo nga tàmbalee tabax tabax tabax bu mënut a yegg jàpp nañ ni février 2024 construction bi dina jeex mais en tout état de cause bu ñu tollee noonu ci ay xat yu baree baree bari lii mënta set mënta leer te xaalis di ci dugg saa su nekk te muy suñu xaalis itamit mais am nañu sañ-sañu wax ni war nañoo def commission d' enquête parlementaire parce que liggéey la boo xam ne bi yoon moo jël may ko député ne demal nga leeral askan mi fi seen alal dugg demal nga leeral ay loo xam ne ay laajte la ñoom yu ñu laajte seen bopp yi te satul kon jàpp nañu ni loolu war nañ ko mën def ñu waxoon ñu ne kër yi ba ñu fi ñëwee dóor dàq bi ñu doon dóor dàq nit ñi jiiñ leen tuumaal leen xaxar leen yàq seen der def nangam def nangam def nangam jëli nañ ci deux cent millions deux cent deux cent milliards deux cent milliards nag kenn du ko jël di ko def ci kalpe bu fekkee ne alalu Sénégal la dafa am fu muy jaar dugg ci budget ñëpp seede ne dugg na ci budget bi nga mën koo lii gis nañ ko tase dañ doon wax ni nañ ci def saytu bi tax ñu xam 200 milliards yi fan la dugg ci biir Sénégal ci dënnu kan la dugg ci gémmiñu kan wala ci ban caisse du trésor waaw loolu jaar na wala jaaruwul beneen bi ligne de crédit bi nga xamante ne bii moom lañu ñu ubbil waa jooju ñuy wax Gabi Perez ci joxoon ko fii ci weccoo boo xam te ne bii cent ligne de crédit de cent quatre-vingt-seize milliards de francs ñu jox ko fi suuf soo xam ne fi dañ ko jox li ñuy wax bail emphytéotique mooy mën ngaa samp fii say tabax juróom fukki at yii di ñëw def ci lu la neex luyal nangam nangam nangam nangam nangam defal ci condition yoo xamante ni bii leerul ci fi te fi ñu koy fañ leen koy defloo ñu jàppoon ni suuf la soo xam ne fii au commandant de la gendarmerie nationale ñoo ñoo fa sampoon seen i tànk loolu war naa indi jaaxle. jaaru nañu seet ko wala waru waruñu koo seet ak sur les licences de pêche yi nga xam ne bi euh, suñu collègue Aba indi la ko leer waaye yii yëpp bu fekkee ni dañoo taxaw ne nañ ci def ay commission d'enquête parlementaire te li ma wax nii nag dafa am yoo xamante ni doyen Lamine Diallo Mamadou Lamine Diallo am na liggéey bu am solo boo xam ne yu bare bare bare ci yi may wax nii da ko ciy bind ni koy Guy Marius Sagna ni Abass Fall Birame Souleye wala ñeneen ñeneen noonu lañ ci taxawee ñëpp taxaw ci waaye lii mënut a nekk mbirum parparloo mais nanguwuñ ci benn benn benn yëpp lañu dàq forage dallu xëddeen sept contre neuf neuf ci neuf ya ca ñoom ca ñoo ca toogoon kenn bëggul commission d'enquête waaw bu dee rek dañoo nekk ci réew day joxe suñu xaalis te saa soo nekk kaa ñu leeral ñëpp gëmm seen i ba taf seen i nopp tëj seen gémmiñ on xam naa ni kon dara du fi leere bi ci nag di mujj mooy euh, wax nañu ci question euh, euh, orales yi ak les questions au gouvernement delloo nañu les présidents de groupe ñu toog waxtaan ci seen biir pour tëral charte yi nga xamante ni bii question ya fa daje noonu lañ ko war a séddalee ngir ministre yi ñëw tontu ci ngir askan bi am lu koy leer ci wàllu woowu kooku jàpp nañu ne mardi te lañ ci war a daje pour wax ci bi ci mujj bi ci bi ci bi ci mujjoon di la haute cour de justice ndax dafa am résolution bu ñu génnoon wax ni ci Covid bi milliards yu bari ñu dugaloon ci ministères yi ñu koy jënd ay poti fleur wala ñu koy jënd singom wala tàngal mant nañ ko leeral waaye képp koo xam ne ki njort nañu ni sa loxo laal na ci ci lii lu dañuy tarfatal ay ni na nga ñëw wuy ci kanam haute cour de justice ndax haute cour de justice nag mooy ki nga xam ne bi moom la ci Sénégal gi ñu may mu mën a àtte koo xam ne kii ministre la ñu waxoon ni bu ñu sampee assemblée nationale bu ñu ko xasee ba samp rek weer wàccee topp war nañu installer haute cour de justice boobu gis ngeen gii Marius Sagna xaxar na ci bay bëgg de fu mu toll nii boo ko seetee dafa wax ba ba ngaami ba ngaami ba ngaami ceene kenn faalewu ko ñun tamit jàppale nañ ko ëf nañ ba sonn kenn faalewuñu waaw léegi nag jàpp nañ ne war nañ koo samp mais résolution boobu biñ ca indi woon ci wàllu haute cour de justice pour que ministre yi nga xam ne seen loxo dafa laale ci lii ñu mën leen atte dañ koo dàqani ba ñu samp haute cour de justice parce que haute cour de justice dafa am composition huit députés ñoo koy composé huit suppléants la ñuy doon premier président de la cour suprême moo koy présider donc dañuy jël dellowaat huit yii ci quotient ba ñuy wax quotient ba ñuy déterminer pour calculer groupe parlementaire bu nekk ñaata nga ciy mën a am kon loolu aussi dellowaat nañ ko groupe yi danañ ci waxtaan mais bu ngeen gisee ñu woote jotaay bi lii lañ waxoon ni danañ ko andi weccoo koog yéen comme ñun ba ñu amee ay jaaxle dañ leen a woo ngeen jàllale leen suñu kàddu bu ñu ooxee nañu kaay leen ñu wax ca la ngeen doon jàmbat danañ ko dëlfat ci yéen jaarale ko ci yéen ngeen mën ñu ko dugalal ci noppi sénégalais ñu xam ni ñun day suñu taxawaay weesuwul ci bëgg rek rek rek rek rek loo xam ne ni lañ ñu sant ñu doxal ko nam ci waree du ñàkk nag njuumte am ndax ay jaam yàlla lañ kese nañ mais bëgg nañu mu leer ci sénégalais yi ne defar dong moo ñu tax a jóg ngeen baal ñu wax salaamaaleykum wa rahmatullah